ami site internet Buzz Actu 221 dal leen ak jàmm xibaar li soxal nag requête en référé bi nga xam ne ay avocat Ousmane Sonko yi daal di woon nañ ko déposé foofee ca cour de la justice bu CEDEAO depuis le septembre dernier bi le verdict nag ni tey jilee la ci waa cour de la justice bu CEDEAO dañ ci fas yéene addu jëm nag ci radiation bi nga xam ne dañ nañ koy def leader bu Pastef di Ousmane Sonko ci noonu ñu dissoudre parti bu Euh, mbir moomee gannaaw bi nga xamante ni ñoom waa pôle d' avocat Ousmane Sonko yi dañ nañoo déposé bi lay référé ñoo ngay sàkku cinq mesures provisoires yoo xamante foofee ci justice bu sedd yaawoo e jëm ci mbirum Ousmane Sonko premier bi nag mun nañu wax ne ñoom ñi leen ñoo ngay sàkku ñi nga xam ne ñooy état bu Sénégal ñoom ñi leen ñu téye seen bopp lépp loo xamante ni rek dafay indil ay jafe-jafe seen diggante jëm nag ci rajation bi nga xam ne dañ nañ koy def Ousmane Sonko ci liste électorale bi lee deuxièmement bi ñoo ngay sàkku ñu ordonné la sursis boo xam ne dañ koy def ci Ousmane Sonko bi nga xam ne dañ ko génnee ci liste électorale bile en vue de l' élection présidentielle atum 2024 yi ñu dégmal ci noonu tamit ñoo ngay sàkku ñu daal di turu Ousmane Sonko ci liste électorale bile bu fekkee rek mesure boobee dañ nañ ko yëjël ci noonu daal nañu fésal ñetteelu mesure boo xam ne ñoo ngi koy sàkku justice bu sedd yaaw ñu delluwaat parti bu Pastef bi nga xamante ni état bu Sénégal def ko daal di dissoudre ci bile ñeenteelu mesure ñuy sàkku état bu Sénégal mu bañ a jéem lenn loo xamante ni rek dafay gàllankoor ay activité politique parti bu Pastef fi ak ñuy jël ab décision bu légal ba élection présidentielle atum 2024 yu ñëw dëgmal le cinquième et dernier mesure nag ñoo ngay sàkku ci état bu Sénégal ku nga xam ne mooy leader bu Pastef di Ousmane Sonko ñu libéré ko waaye tamit ñu teg ko ci yeneen condition yoo xamante ni rek dina mën a wéyal ay activité am politique te kenn di ko tere ndax nag amul yenn mesure alternative yoo xamante ne dafay gàllankoor ay activité politique am adina ay mesure yoo xamante ne pôle d'avocat Ousmane Sonko yi ñoo ngi koy sàkku foofee ca cour de la justice bu sedd yaawa ngir nag ñoom ñi le ñu daal si addu jëmale ko nag ci état bu euh, Sénégal kon nag jamono ji le rek ñoo ngay xaarandi ban décision justice bu sedd yaawa la fas yéene jël nag jëmale ko ci état bu Sénégal ak Ousmane Sonko mi nga xamante ne dañoo dissoudre parti am boobee di Pastef les patriotes ci naka noonu tamit ñu daal di koy raje ci liste électorale bile euh, ba taxoon nag ay avocat am daal di woon ko yóbbu foofee ca cour de la justice euh, bu CEDEAO